باسما لي كان عند الواسعات أقعر لك كالكلي رضا والساتعات مد لي الأنوار عند الظلمات وظالمين من كباني الصدمات سعادتي عند الإله الله لي ظهرت عند ذوي الملاهي yëgal ne nag sunu waxtaanu tey moom ci yent yëf la war a jëm benn bi moo di gëm yàlla ak sarti gëm yàlla ñaareel bi mooy jaayante ak saa sarti jaayante ñetteel bi mooy jub ñeenteel bi itam mooy liggéey gëm nag dafay def loo xam ne fu mu nekk ci yow tey dëgg ci yow ñàkk teg sa bët ci lëf du tee nga mën koo waat ci waatukaay yépp gëm nag am na juróom yoo xam ne bis mu ne daanoon ko di seere sax waaye dafa soxla waa juróom yooyu mu man koo waat gëm ko gëm gu wóor ngeen ku ci nattabile lenn rek wala nga sikki sàkk ci lenn gëm moom amatoo ko juróom yi mooy lan wa anna la si jaa bihi muhammadun xaqun wa annal jannata xaqun wa anna naara xaqun wa anna saahata aatiyatun laa rayba fiha wa anna allaha yebbansu man fil xubóor yi juróom yii moom loo ci sikki sàkka amatoo gëm boo ko sàr boo sàmmee sa gëm nag ba gëm di wér ba noppi nag li ab jullit war a daa ngay doonu jullit li jullit war a def nag am la mu bëgg nag mooy xad aflahal mu'minuun allasiina hum fi salaatihim xaasi'uun wallasiina hum ani laxwi muhriloon wallasiina hum li sakkaati faahiloon wallasiina hum li furuujihim xaafisuun ba yegg ci allasiina yarisoonal firdawsa hum fiha xaalidun loolu mooy sartu ab jullit ci boppam boo matalee loolu rafetal ko sa jullit mat na sëggam wér na sëriñ Tuubaa bu dee wax ne aw mu ab tariixa dama fekk yoon wi yonente bi àndoon ak saaba yi jaar ca mu xaw a farka yi mag ko ba mu set wecc defaraat ko ba mu leer nañ wax ni ku bëgg a dem na ñëw yoon waa ngi yoon woowu mooy yooyu yoonu jaayante ngir kat saaba yi ñoom ba ba ñu saxee ci lii nga xam ne mooy mooy tax mooy sar ci gëm bu mu cin dañoo wëlbati ko wax ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ni ko li nu bëgg daal léegi tey mooy jaayante yow jox la sunuy bakkan jox la sunuy alal nga warlu ne daanu dem ajjan loolu ba mu ko defee mu ne leen man day mënumaa tontu ci loolu sunu borom a amee tontu li sunu borom daal di tontu ne inna allaha istara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluuna fi sabilillahi wa yaqtuluuna wa yuqtaluuna wax dan alihi xaqan fi tawrati wal injili wal qur'aan yi daal cay teg ne nag wa man awfa bi ahdihi min allahi loolu kon dugal nañu ci biir daal di daal wax nag ne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 añ ba door a dikk di ràlliee law anhu waraloo anhu kon nag jaayante lu am la lu wër la jaayante na nu sëñ Tuuba kon nanu xam ne moomam suñu bakkan moomam suñu alal am nanu taw feex nag am nanu taw feex nag akum noflaay ci kaw nag bi nga xamante ne bakkan yi moom laaju deret yi te bu laajan deret yi bis bu ne sotti ñu ko waaye nag ginnaaw ñaq yi rek la laaj ak alal ji sunu alal moo ko moom sunu bakkan moo ko moom loolu la ñuy wóor jëm ma ñëw ci wàllu jub jub moom dafay loo xam ne dafa mat a góorgóorlu ngir kenn da koo defalul can ku ne sa bopp rek nga koy defal alxuraan yàlla wàcce na ko ci yonent bi waaye ci nit ñi rek li jëm inaa anzalnaa alaykal kitaaba linnaasi bil haqqi daal ciy teg na fa man ihtada fa li nafsihi wa man dalla fa innamaa yadillu alayha wa maa anta alayhim bi wakiil kon nan góorgóorlu ci jub nga xam ne sunu bopp la ñuy jubal bu nu bañee jubit sunu bopp rek la koy teg kon jub lu dul ci liggéey nag liggéey moom day loo xam ne moo yor lépp ku ne la ngay liggéey ca sa lépp di bàyyi ko la ngay liggéeyal yàlla la ngay liggéeyal addina la ngay liggéeyal keneen ñi nga xam ne sax yëgguñu ci di liggéeyal yàlla seen bopp la ñuy liggéeyal kenn ku ci ne sam adresse mooy la ngay liggéeyee fa ngay liggéeyee ak nag ak lu mu kon nag liggéey rek am solo nan góorgóorlu nag ci liggéey nga xam ne liggéey bi kenn ku ne la la yàlla féete féetale jubal ko rafetal ko moo ciy seen ndimbal nun ñi nga xam ne euh, bay ak yooyu mooy suñu liggéey nan fas yéene li yàlla santaane ci mbay ñu di ko def dina natt asaka di def lu leer ci li suñu liggéey ñi def leneen itam ñu sàmm loolu loolu bu nu ko defee suñu tey dana leer suñu ëllëg dana leer jërë ngeen jëf maa ngi dellu nag di ñaan yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak sëñ Tuubaa mi nu wéeru ci moom te yaakaar nu daral dul moom mu yëwénal sunu biir addina yëwénal sunu biir àllaaxira te àtte ni ci yërmande ak ndimbalam nag te bañ noo àtte ci sunu néew doole ak sunu càggante